naqar bu métti bi dal suñuy naataango yi nekkee ca diwaanu leeral TV mu di benn accident bu méttee métti boo xam ne am na démb ah, ca diwaanu Kédougou ba jur nag lu toll ci ñett ñoo xamante ni ñàkk nañ ci seen bakkan ak ñaar ñoo xamante ni amee nañ ca ay gaañu ba démb rek ci altine ji ci na benn avion militaire daal ñëwee rek ca aéroportu Tambacounda ngir rek sauver si ñaari blessé yooyee nga xamante ni am na ca biir accident ba kenn ki mu ngi wuyoo ci turu ah, Thierno Alassane Kane keneen ki di wuyoo ci turu Aminata Sow ñoom nag jot nañ leen a évacuer fii ci hôpitalu principal bu Ndakaaru buñ sukkandikoo ci gouverneur bu Tambacounda di Omar Mamadou Baldé xamal nañu ne état dina jël en charge ñaari blessé yooyu waaye nag ba tey ci ñett ñi nga xamante ni ñoo ci ñàkk seen bakkan di Mamadou Sy di journaliste Yoro Mamadou Diallo di caméraman Ousmane Ndiaye di chauffeur ba ñoom nag dinañ leen jébbal seen borom niki tey ci talaata ji kenn ki diwaanu Podor ki ci des euh, Casamance keneen ki dinañ ko jën ci Touba ñu leen di ñaanal rek suñu boroom jéggal leen euh, seeni bàkkaar euh, te xaaral leen rek ca aljana ya gën a kawe encore une fois ñu koy jaale rek képp koo xamante ni bii rek seen famille nga ak ñi nga xamante ni ñooy liggéeyee ca diwaanu Leral TV ñu ngi leen koy jaale bu baax a baax. ci mbirum accident boobu rek ci la ñuy daal di dese ni Dame Dieng nekk administrateur groupe bu Leral TV daal dina joxe lu toll un million ci famille bu nekk bi nga xamante ni bii rek ñàkk na doomam démb ci accident yooyu la daal na leen di jox ku nekk un million daal leen di promettre na leen tamit dina leen fay lu toll un an boo xamante ni bii rek daf leen koy fay ñoom ñi nga xamante ni ñoo ñàkk seen bakkan dina ko fay euh, seen famille ba tey rek ci boobu boobule tournée économique bu chef de l' état bi ci la loole rek daal di xewee mu di nag. trois agents wu groupe Leral TV ñàkk seen bakkan waaye njiitum réew mu Sénégal daal dina leen di jaale ba tey it daal dinay jël en charge ñaar ñi nga xamante ni rek jamono ji ñoo ci amoo woon ay jafe-jafe ba fi ni rek mu sukkandikoo ci yëglekaay bi mi ngi xamal ne ñoom ñooñu ah, ñi ngi am tan bu baax a baax ñu leen di ñaanal rek fa ñu nekk ñu daal fay jugee ah, ba delluwaat rek ci seeni activité ñu àddu ci leneen mbirum homosexualité gis nañ ne nag jamono ji rek nekkoon na li nga xamante ni moom la ñuy gën a waxtaane ah, ci réseaux sociaux yi ginnaaw ci épreuve rek bac blanc boo xamante ni rek euh, ca anglais euh, génne nañ fa ab sujet boo xamante ni day wax ci mbirum euh, homosexualité waaye nag kii di monsieur Balde di professeur bi nga xamante ni bii rek moo proposé woon sujet bi lee daal dinay génn nag di xamle ne mi ngi baalu rek sénégalais yëpp àq wax ne ne moom moo juum te dootu ko defati benn yoon xamewul woon ne sax na yëf yi nii lay demee ndax moom jullit la te dafa yàgg rek di xeex li nga xamante ni moo di mbirum góor jigéen kon nag du mës a lu ni waaye daal encore une fois mi ngi jéggalu bu baax a baax sénégalais yi te leen di xamal ne li ni mel dootu ko masa dalati ñu àddu ci leneen mbirum ki nga xamante ni moo di Pape Ndiaye nekk chroniqueur foofee ca Walf TV ñu gis ne nag am na jafe-jafe rek ak polisu Sénégal ba sax rek démb ñu doon demande tëj ko li nga xamante ni bii rek mooy un an ferme de prison waaye nag loolee mujjee na am buñ sukkandikoo rek ci juge du tribunal de flagrant délit daal nañu xamal ne kii di Pape an dont trois mois ferme kii di Pape Ndiaye nag loolu la ñu ko daal di tëj ñu fàttali la nag ne mbirum escroquerie la ñu ko doon toppee ci ki nga xamante ni rek moo di ndey Awa Ndiir moom nag la yore loon euh, xaalis ba tax rek ñoom yëkkati woon nañ lu toll un million euh, cinq cent mu sukkandikoo rek ci ay avocat am ngir bëggoon a fay rek li ni waaye nag dañoo dem ba ca digg ba ñi nga xamante ni bi moom ñoom la yore loon li ni ñu daal di bañ rek ne dootuñ defati linimel ba tax rek kii di Pape Ndiaye daal mujjee nañ ko tëj un an dont trois mois ferme ñu àddu ci leneen beneen kawtif boo xamante ni ña ngi ko nemmeeku ca diwaanu euh, Daara Jolof benn agent municipal moo daal di violé benn doomam boo xamante ni bii rek moo ko jur euh, ci géñom mu sukkandikoo ci Sénégal 5 point com moo ñu ko daal di xamal xale bi nag euh, papaam bi nga xamante ne nii rek moo ko jur moo ko daal di violé même góor sax mën nañoo jàpp ne agent la ca mairie bu Daara Jolof xale bi nag yóbbu nañ ko ci hôpital Elisabeth jouf lépp lu ci fasaad dañ leen ko diktalaatal ci suñu yeneen jotaayu xibaar dañu koy daal jeex xale rek ni ki tey jii rek euh, yemoo premier juin 2021 ñu ci nag fàttaliku Serigne Mbacke Soxna loo nekk doomu ci Serigne Cheikh euh, Gaynde Fatma di doomu Serigne Modou Moustapha di taawu Cheikhul Khadim euh, tey nag yemoo woon ak bis bi nga xamante ni rek moom la génnee àdduna ñu di ko ñaanal rek suñu borom yokk ay leeram te taas ñu si ba lii rek moo fi gënoon a fës ami internet yi dig dajalay doon ba ëllëg jàmm